na ñii di waa Liverpool ña ngay def lu nekk ngir am ndam ndam loolee ñuy wut nag bu ñu ko amee benn poñ képp mooy dox seen diggante ak Manchester City loolee moo tax tey jii ñoom ña ànd ak Sadio Mané ak Mohamed Salah ndam képp la ñu bëgg doomu ndeyam bii di Edouard Mendy ak wàcceel si ñoom tey ca France lañ jëm fekki fa Lille match retour huitième de finale Ligue des champion ca match aller ba ñii di waa Chelsea ñoo dooroon 2-0 waaye doomu Sénégal bii di Edouard Mendy la mu bëgg moo di def quinze clean sheets maanaam fukki match ak juróom jëm ci Ligue des champions jëloo but Edouard Mendy loolee la bëgg ànd ak Chelsea nag qualifié ca quart de finale ya kii di capitaine Casa Sport di Aliou Badara Fati it mi ngi ci journal bi li ko waral moo di kii di Aliou Cissé kat day wéyal di ko wóolu ndax kat kii di Seyni Timothy Dieng dafa blessé du bokk ci ñaari match yi Sénégal war a am ak Égypte waaye li journal bi xam le moo di kii di Aliou Badara Fati Aliou Cissé dina ko woowaat ndax wóolu ko ñii di waa AS Ndiambour nag ñoom ginnaaw démb bi xibaar bi génnee muy lan kii di Sidaat Sarr dafa tekki ndombo tànkam waa AS Ndiambour dañoo génn weddi ko waaye journal bi li mu xamle tey jii moo di Sidaat saar ma nga ca Thiès tëdd këram kon nag Sidaat saar mii tàggatatul ñii di waa AS Ndiambour ñu jógee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe l'équipe ma nga fësal ñii di waa Chelsea ak liil ca xët wu njëkk wa waa Lille nag li ñu bëgg tey jii moo di daaneel ñii di waa Chelsea sanction yi nga xam ne àdduna gépp ngi koy teg ca këlëb boobee ñoom la ñu bëgg moo di dellu mbuum ca mboy mboy ga mu gën a ndax Chelsea kat jamono ji xaalis sax daanaka amatuñ ko bëgg moo di moom it def waree fam qualifié ca quart de finale ya loole nag pour mu am il faut mu dóor ñii di waa Chelsea te bu koy dóor il faut mu dóor ko 3-0 ndax match aller ba ñii di waa Chelsea ñoo dóoroon 2-0 kon ñii di waa Lille bu ñu bëggee loolu ñuy wax il faut ñu jëmbat fulla kon nag match boobee tey jii bu 20 jotee dina tàng jër ñu jógee France wutali Londres Angleterre fekk fa Star Sport staru Manchester United bi la fësal ca xët wu njëkk wa Cristiano Ronaldo ñoom waa Manchester United nag démb jël bu rëy lañu daanu fële ca Old Trafford ki leen daaneel moo di Renan Lodi ànd ak waa Atlético de Madrid ca match aller ba 1 la woon démb ñu dóor leen 1-0 moo tax génn nañu ca po mi kon nag Cristiano ak Lionel Messi bokkatuñu ci Ligue des Champions bi te kat ren jii ñoom mercato bu baax la ñu def ndax jënd nañu kii di Jadon Sancho ak kii di Cristiano Ronaldo ak kii di Raphaël Varane te mun ñoo dem sax ci quart de finale Ligue des Champions loole nag gàcce gu mag la ca më yu waaye tamit ci 2017 ba léegi jëluñu coupe coupe bi ñu mujjoon jël mooy Ligue Europa ñoom ñoo final ak Ajax Amsterdam dóor ko ñaari bal ci dara te ren jii dina jafe lool pour ñu jël coupe kon nag ñoom dañoo lajj ci saison bii ñu nekk. ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay waa Atlético de Madrid la fësal ca xët wu njëkk wa ñoom nag ci bunt bu mag bi la ñu génnee li ko waral démbkat kat fële ca Old Trafford match bu baax la ñu def kii di Renan Lodi di doomu Brésil moo leen mbay ndam dugal mbëkk bu rëy a tax na nag ñoom def nañu jaloore ko seen wujj yi di waa Real de Madrid defee woon waaye journal bi li mu xamal waa Atlético de Madrid moo de ndam loolee ngeen am de sante leen ko seen góol bii di Oblak ndax taxawaay bu ama am solo la am ca match boobee kenn du moom tey jii nag Espagne gépp a ngi ci ginnaaw Villarreal bu Boulaye jaa ñoom waa Villarreal tey li leen war moo di am ndam bu ñu bëggee qualifié ñoom nag ñooy fekki Juventus tey match boobe vingt heures la ca match aller ba 1-1 la woon kon kat Espagne gépp tey ñoo ngi ci ginnaaw ci mbiru kii di Hailing Haaland ñoom kat yëf yi léegi dañ koo téye ci seeni loxo bëgg nag mu sotti léegi kenn ku ne xam foo féetee waa Real de Madrid la ñu bëgg moo di ci fan yii di ñëw ñu matal lépp bu ñu xaymaa nag lañu ca nam ma def ñoom waa Real mi ngi toll ci trois cent cinquante millions d'euros kon doomu Norvège bii kat mën nañoo jàpp ne waa Real dugg nañu ca bu baax a baax te loolee tamit journal bi moom la xamle ñu jógee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay Atlético bii gis moom la ñu doon gént démb dañoo am taxawaay bu ama am solo fexe ba lijjanti ab bi def nañu leen xamee woon muy kar ñoom waa Atlético de di daal dañoo tegal gite ngaas waa sa Manchester United mënuñoo fexe ba dugal benn but waaye nag kii di oblaa kenn du moom ndax arrêt ya mu def doy na waar lool ba tax ñoom ñii di waa Atlético ñu am ndam lu ama am solo waaye kii di Cristiano Ronaldo nag ca match boobee kenn xàmmewu ko fa kii di Unai Emery ak waa Villarreal ñoom tey jii la ñu bëgg ca Juventus moo di qualifier dem ca quart de finale Marin Imri dina dugg ci taarix ndax kat moom mii ba mu dalee tàggat club ba léegi mosul yël club ànd ak moom dem huitième de finale éliminé ku mu dajeel dem quart de finale kon nag tey bu demee quart de finale dina dugg ci taarix ci fàttali ba muy yor Paris taseeg waa Barcelone dóor ko 4-0 match aller match retour ba Barça 6-1 la ko dóor mu toog loolee nag mosul am ci taarixam kon tey bu qualifié rek dina doon yoon bu njëkk mu dem ci quart de finale Ligue des Champions ñii di waa li leen jaaxal moo di seen di Vinicius kat bu nekkee ci terrain di football gars yi dañu koy wéq ñi nekk ci tirbine bi tamit dañu koy yuuxoo ba yegg ak moom sax di ko yuuxu ci affaire racisme te loolee kat waa Real de Madrid jaaxal na leen lool bi ci mujj mooy bërki Dembo Njaay ba ñu demee ca mayar ko gis ngeen ni gone gi sonne gars yi kaj ji nañu ko wéq nañu ko def nañu ko lu ne ba di ko yuuxoo sax bay yegg ci ay racisme racisme nag mooy bot di konte ci wàllu xeet loolee nag jaaxal na waa Real de Madrid te ka doon arbitré bi match xam ne moom lay jox waa liga bi loolee bind ko ci loolee nag moo ub bopp waa Real de Madrid loolu moo tax waa Real de Madrid samp laaj ne gone gi lan moo xew dañ koo bañ wala li muy def da ko mën ba jaaxal ñëpp ba ñëpp jéppi ko loolee la Real de Madrid samp comme laaj ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport kessier la fësal ca xët wu njëkk wa ñaareelu recrue bu Barcelone ginnaaw bi mu indee kii di Christensen daanaka kii di kessier topp na ci ñoom waa Barcelone jubóo woon nañu ak Christensen ba teg kii di kessier nag Barcelone jubóo nañu ci lépp waaye li journal bi xamle moo di Kessié mii nag bu ñëwee ci milieu bi dina baax lool ci milieu terrain bu Barcelone ñi fi nekk ak moom wuute nañu ndax kii milieu de terrain bu mën li muy def la te ku am doole la kon nag bu ñëwee fii ci Barcelone dina jàppale gaa ñi ci liggéey bi ñoom De ak ñoom Gavi ak ñoom Pedri waa Barcelone nag loole daanaka tege nañ ko côté ndax yëf ya sotti na leneen lii tamit sotti na muy lan sponsor bu yees tàq la Barcelone am sponsor bi mi ngi tudd ñëw na ba officiel na waa Barcelone xaatim nañu ak moom contrat lu bëri nag dinañu ko soppi ndax mayo Barcelone bi ngeen di gis ñu bind ci rakkuteen déwén bu Barcelone di football Sport TV mooy nekk foofee te state ba nga xamante ni mooy stade du Barcelone ba tudd Camp naw mi ngi war a tudd Sport TV Camp Nou kon waa Barcelone am nañ sponsor bu bees sponsor boobee nag tudd Sport TV ku ko xamul li ñu lay ñaan mooy nga jël sa téléphone nga dem télécharger application bii tudd Sport TV ñoom nag ci li ñuy yëngu mooy ci wàllu musique musique bu dul musique gu jinne daal boo ko bëggee di nga ko fekk foofee ci application bi kon nag li may ñaan supporteru Barcelone yi moo di ñu dem télécharger application fédération bi nga xam ne dinañu jàppale seen club ñu jógee esport jël Mundo Deportivo moom dafa dëggal signature boobee Barcelone signé ak ñii di waa Spotif yi nee na dëgg la de Barcelone am na sponsor bu bees waaye nag waxuñu ñaata la Barcelone di jot ci xaalis at mu dee loolee nag journal bi li mu xamle moo di man li ma leen di wax daal moo di soixante-cinq millions ba soixante-dix millions Barcelone dina ko jot at mu nekk la ñu signé nag mi ngi toll ci ñeenti at kon Spotif yi ak ñii di waa Barcelone xaatim nañu contrat mercato bi ñii di waa Barcelone nag seen yaram dafa tàng jër ginnaaw bi ñu juboo ak kii di Christensen juboo ak kii di Franck Kessié ñoom jox nañu seen kaddu ñii di waa Barcelone li ci des kay mooy officialiser ko waaye juboo nañu ci kaddu waaye Barcelone yemul foofee de kii di Masraoui nekk doomu Maroc moom it mi ngi ci yoon wi daanaka juboo na ak ñii di waa Barcelone te ñii di waa Paris woo nañu Barcelone ne leen bu ngeen bëggee ñëw leen jëlaat Neymar kon jamono ji Barcelone ci mercato bi tàng fekk fa Corriere dello Sport Maximiliano Allegri moo nekk ca xët wu njëkk wa moom la mu bëgg moo di dem ca final lig des Champions loolee moo nekk ci xelam te loole lay digal ko ñey moom nag mooy dalal ñii di waa Villarreal bu Boulaye ja tey jii la match retour waaye la mu wax gone yi moo di li ngeen di def jëmbat leen ci fulla te am bëgg-bëgg bëgg-bëgg bi nag mooy di bu leen xalaat quart de final xalaat leen final ñun final lañu ñu bëgg dem ñu jógee Corriere dello dello Sport waa Juve la fësal ca xët njëkk wa ñoom nag tey jii ñooy dalal Villarreal bu Boulaye Dia waaye Juve la ñu bëgg moo di yéeg ba ca kaw am ndam lu ama am solo ci ñii di waa Villarreal ndam loolee nag ñuy wër waa Italie gépp ngi seen ginnaaw di leen jàppale ndax Italie benn club képp la desee ci Ligue des Champions bi muy Juve waaye nag ndam loolee lépp nag bu ñu koy wut doomu Serbi bii di Vlahovic ma nga ca biir te gone gi jamono jii day lakkee ca attaque gu Juve ba daal kenn mënu ko ca doomu Côte d'Ivoire bii di Sébastien Haller it mi ngi ci journal bi li ko waral moo di ñii di waa Inter dañu ko bëgg te fan yi weesu agent wa ma nga woon ca itali ngir waxtaanee ëllëgu gone gi ñoom waa Inter nee nañu noppi nañu ngir jënd gone gi muy Sébastien Haller nekk fële ca Ajax Amsterdam kon gaa ñi yëf yi foofu la buuree ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci kanam ak beneen vidéo incha allah